tem ana fan la ñu coronavirus bi jëmee bu ñu wàccul moom coronavirus bi dañu ko wàcc ndax bu ñu wàccul ñu wàcc ko di wax ci leneen ak lu mu mën a doon fa mu jëmee ndox amu fa te mbas ak ndox mu ñàkk musiba la naam jàngoro ji doy na waar kenn nattabli ko waaye sunu kilifa yi itam kenn du ñoom yàggul dara bi fi njiitu réew mi président Macky Sall ko ci askan wi ñu jàng ba mën a dund ak jàngoro ji ba ñëpp tàmbali di ko jàng ñu bari dem bay waaj a fer ji Aly Ngouille Ndiaye génn ne taxaw leen daal di faase àlluwa yëpp ku dégg janoom bu mu jóge ak taskatu xibaar yi nga xam ne tas na yaakaar ñoog lii ak ñii ba kañ tëj leen jàkka yi tijji leen jàkka yi tëj leen marché yi tijji leen marché yi suul leen néew yi bitim réew indi leen néew yi lépp lu ñu ne woon bàyyi leen ko ñu dellu siwaat ni def leen ko ab tànk wolof yaay ne dañu koy tàllal mbaa ñu bank ko wa ilaa ñu dagg ko te askanu yéen a ngi leen di bëgg a dofloo bi ma déggee ministre bi wax ne rassemblement yi di ndaje yi ndakaaru képp lañ ko tere mu mel ni virus bi du Cameroun Town Boy Town la ba nuru ne ku mu neex nga wasi ne ndakaaru ngénte ji ndar mbaa njaareem ba sa xew jeex ku ne xam na ni boo fa yóbbul wopp si mën nga ko faa jëlee te muy kàll nag bu ñu jëw jëwriñ ji kàll maanaam mooy gàmm di màggal mbaa xew-xew bu mu mën a doon fu leen neex defe leen ko fa ba mu des ndakaaru ndax lii yanu na maanaa tontu bi ci lu gàtt te leer maanaa virus bi réew mi juróom-ñaar fépp la tasaaroo lu ñu ne xamoon nañ ko nag waaye waxoon nañu ko ak ni ñu tabaskee ren ndéwénal gi nii rek la mënoon a demee mooy feebar bi tas ci biir réew mi buñ ci bëggee boole nag takk masque par force ñu dem ci ba alamaan ak i daan ba dem kaso am ci yoon jóg jot na nde dogal bu ni mel policiers yi sant jóg dong la ci seen affaire na a baax di koppartaatu askan wi bàyyi fi dara te bu ëllëgee nga takk sa masque rek ngay dégg ci alkaati njóobeen yi sañ naa leen ko wax ñoom sama ay kal lañu te ñoom njóobeen alkaati yooyu nañu xam ni képp ku ñu fekk ci mbedd mi jàpp la tooñ nañu la ndax li ministre bi wax ñëpp dégg nañu ko ku mu neex dox fu la neex ci mbedd mi te doo takk sa masque na leer feebar bi kenn werantewul ne eh, mu ngi toj àddina waaye taf yëngal ak tandatu gi ñu ci nekkee moo ñu nar a gën a lor te buñ ci deful ndànk nawetoo nañu ko ren gi moom coronavirus nawetu déwén bi mën na ko fa fekk yàlla bu mu am na gaaw jóge fi waaye ndimbal da cay fekk loxol borom ma déggaat général Mame Thierno Dieng ne li ëpp ci ñi faatu ca l'hôpital principal ba ñu l'enquêté ci dëj yi ak suulu yi foofee lañ jël jàngoro ji ma ni kon lay jeex na ku weddi taalal sa télé ba gis li fa am ci ay levée du corps la ca teew ci mbooloo ak i kilifa loolu yëpp takkum masque ba koy fanaanoo lu mu ci mën dara la ci mënul te kàddu yooyu ci tubaab mooy médecin après la mort dogal ñu ci mën a jël nag nañu xam ne béy wéy na mbuus li des jamono ji mooy nañu dooleel hôpital yi te yokk pajkat yi te yokkal leen askan wi am ci ñoom yërmande sàmmonte ak digle ñu leen sant rek mooy li fi des wasalaam ba beneen conférence